je m'appelle euh, Patrick Mort, je suis metteur en scène, formateur, comédien du Théâtre Spirale à Genève. Et c'est nous qui avons initié le projet le, Pont, qui depuis 4 ans se fait à, Thiès. Un projet de formation pour des acteurs professionnels en français et en wolof sur différentes techniques du théâtre. Et cette année, nous avons travaillé sur le théâtre jeune public, le conte, les marionnettes et le théâtre d'ombre. Alors aujourd'hui, euh, je faire une formation euh, est-ce que vous pouvez revenir ah, sur cette formation euh, Alors, euh, cette formation cette année, c'était une, formation justement pour le théâtre jeune public, parce qu'on pense que c'est très important de donner un théâtre de qualité pour les enfants, pour les jeunes, parce que ça, ça c'est le public de demain, et il est trop souvent négligé, où on fait des choses un peu rapidement, à la hâte, alors qu'il faut travailler avec la même exigence, la même qualité que pour les adultes, hein, et que c'est pas parce qu'on monte un spectacle pour les enfants qu'il faut le faire à, la va-vite, mais il faut penser au message qu'on veut porter, à la forme qu'on peut faire passer pour que les enfants puissent le recevoir. Et puis, euh, c'est notre, notre public de demain et c'est très important de, beaucoup respecter les enfants qui sont, qui, sont les, euh, qui sont les grands sages pour moi. Les enfants ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, euh, après cette formation, qu'est-ce que vous, vous dites vous êtes satisfait de ce qui a été fait au je suis très heureux du travail parce que j'ai vu les gens s'épanouir. Et, ce qu'on cherche le plus dans ce projet, c'est l'autonomie, l'indépendance des acteurs. on ne veut pas amener une, vérité parce que de toute façon, il n'y a pas une vérité, mais on veut que chacun trouve sa vérité, son chemin et se, se responsabilise en tant que créateur. Et qu'une fois qu'on soit parti, qu'ils prennent euh, leur destin en main, qu'ils créent des spectacles, qu'ils les tournent, qu'ils les fassent vivre. Parce que c'est dommage, trop souvent, il y a des spectacles qui sont créés c'est un gros travail, c'est des mois de travail, ils sont joués une ou deux fois. Il n'y a pas beaucoup de circuits encore au Sénégal. Donc avec des petites formes plus légères, un acteur, deux acteurs, trois acteurs, cinq acteurs, on peut tourner facilement. Faire une version en français, faire une version en Wolof. Jouer en français permet aussi d'aller jouer au Mali, au Burkina, Côte d'Ivoire, dans toute la francophonie. Donc ça diversifie beaucoup plus les possibilités. Et ça permet de mieux vivre de son métier. Combien d'acteurs ont été formés 32 euh, personnes cette année, plus tous les gens qui travaillent autour, les formateurs, les cuisiniers, euh, toute l'équipe d'organisation. Ça fait plus de 40 personnes qui travaillent pendant 5 semaines. C'est pendant le grand stage. Et à part ça, on a des stages sud-sud qui sont donnés par des formateurs sénégalais euh, comme Matara Diouf, comme Ibrahim Mbaye Sopé. L'année prochaine, il y aura Patricia Gomis. On attache une grande importance à ce que les femmes aussi soient formatrices, soient metteurs en scène, euh, soient au même niveau que les hommes, parce qu'elles ont tout autant de choses à, dire et à exprimer c'est un projet qui, euh, à plus long terme, doit bénéficier du soutien des autorités sénégalaises. Parce que pour l'instant, le seul soutien, c'est la mise à disposition du centre culturel, qui est quelque chose d'important. C'est un lieu de travail, c'est notre base. Mais euh, on, a, besoin d'un partenariat où euh, le gouvernement sénégalais s'implique aussi financièrement pour soutenir ce type de projet. Autrement, les Suisses ne vont pas continuer à soutenir quelque chose s'il n'y a pas de contrepartie. Et je pense que c'est naturel, c'est normal. Et et, on va rechercher ça. On a des contacts avec euh, euh, la direction nationale des arts, avec euh, au niveau régional. il faut tous qu'on y travaille pour que cet engagement soit plus, clair et se, concrétise en fait. on avait vu chaque année, il y a quelques artistes qui prennent, qui allaient en Europe oui. pour tourner des choses là-bas. Oui, alors ça, ça, évidemment, évidemment on apprend à connaître, à aimer les artistes. Et quand on a un projet euh, où on a besoin de certains artistes, on peut le, parfois on les intègre dans des projets. Cette année, il y a aussi une formatrice qui est venue du Canada, qui est metteur en scène, un monsieur qui est venu de, du Mexique. Peut-être aussi des fois, s'ils ont besoin d'un acteur ou d'une actrice euh, euh, sénégalaise, ils peuvent leur demander. C'est pour ça que ça s'appelle le pont. Un pont, c'est pour relier les continents, pour relier les personnes. Et puis ça se prend dans les deux sens. Il faut bon. Euh, on a vu que al Momodou et, comment dirais-je, une autre dame, ça ça fait deux ans, il allait en Suisse pour tourner avec toi des choses, quoi. Oui, alors ça, on a monté un spectacle qui s'appelle Eldorado. Dorado. Et j'ai incorporé cinq personnes de l'équipe qui sont venues pour ce spectacle. C'était, ça a très bien marché. C'était une grande équipe. On avait 45 personnes avec des gens qui venaient de partout dans le monde. Il y avait cinq Sénégalais qui étaient sur scène. On était très fiers qu'ils soient parmi nous. Peut-être dans d'autres projets, d'autres personnes auront <coughs> cette chance. Mais surtout, c'est le plus important pour moi, c'est que chacun crée son propre monde, son propre univers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des troupes, hein, qui ont beaucoup de choses à dire, et, il faut vraiment <coughs> qu'ils créent et qu'ils tournent. C'est ça. Bon, assalamu alaikum, je suis Issa Ndiaye, artiste comédien et j'ai fait partie de la troupe et de Thiès. Alors, vous avez été formé formation moom franchement di li lim ñu apporter ñun mënuñu wax lépp parce que formation bi nekk na li nga xamante ne nii njëriñ la pour ñi nga xamante ne ñi ñi ngi nekk ay jeune talent yi nga xamante ne nii kenn xamuñu en plus formation bi nekk na li nga xamante ne nii dinañu jëriñ parce que parce que bo xolé euh année bi euh def nañu marionnette def nañu théâtre ombre en plus def nañu théâtre jeune public l'année passée on a fait Eldorado te en plus amna pièce yu bari yuñ ci yuñ ci joué yo xamanténi ni ben dina la dina la permettre euh nga mëna rapprocher nit ñi ñaar dina la xam naka ngay dundé ak nit ñi ñet dina la jàngal aduna théâtre dafa nek li nga xamanténi ni euh njëriñ nek pour mën naa ne garab la garab bo xamanténi da fay faj parce que bo xolé mën naa ne théâtre dina fekk nit ci sébar wéet loola théâtre dina fekk nit ku mer mu dindi sa mer théâtre dina fekk ñaar ñu xuloo mu jibóole leen théâtre dina fekk kër gu tas mu dajalewaat leen

information bul ko garder yow bien vrai que ne la pour yow mais génn ko nga partagé ko ak ñeneen ñi ñoom ñoo ko def tey parce que boo xoolee Matar Diouf day dagg léppam ñëw def ak formation pendant un mois année bi chaque des am na ay semaines yoo xam ne formation bi day continuer comprendre nga ak keneen ak keneen ñuy def noonu kon kon euh, dama naan aar daal ca kaw ca kanam ci lu baax. Baba Camara artiste comédien euh, nekk troupe royukaay bu Thiès bon sama xoolee ni ma taxawee nii nga taxaw naa avant parce que lu ma neex naa doon def xaw ma woon lu may waxee xaw ma woon lu may taxawee sur sama yoon nekkul ci leen damay ñëw rek def lu ma neex pour man dem sama yoon mais euh, may gërëm tamit Dramé suñu président parce que euh, li yëpp moom la parce que suñu organisé wu woon ARCO ba ARCO mën a doon partenaire ak waa Suisse. Mhm. kon duñ ci dugg bay mën a liggéey di taxawaat parce que ñun pour ñun théâtre moom télé la rek xam nga télé moom coupé collé la rek mais sur scène ngay xam ne kii artiste la wala du artiste déplacement dafa am ci dafa baax ci artiste way dafa baax ci artiste man boo xoolee dama polyvalent damay fecc damay way damay joué. lépp ci formation. formation bi dama ko don def mais formation bi dama gëna dolel parce que ñame mo won sama voix su ñeewa way dama duma duma géwél duma way mais Patrick motax may way mu ne ma da ngay way parce que da nga mëna way motax ma commencé way lo def ci jaar di nga xam technique bu nga wara def li nga def moy ni manam doo toog kuy lamb ma pour man rek juum amatu et moi je rajoute une chose euh, je rajoute une chose par rapport à man c'est-à-dire dama bëggoon a laaj kenn ko parce que tey dugg si affaire compte quoi. Mhm. da wax compte wax éducation. wax les enfants wax bon côté boo xamante ne dafa sensibiliser. ma bëggoon leen a laaj ndax ñëw réellement am ngeen benn projet boo leen ko si case des tout petits. Mhm. wala yóbbu ko si ministère de l'éducation boo ne di ngeen mën a dem sensibiliser war a ko yóbbu seen. d'accord parce que laal fa am solo. Euh, depuis bi ñu formé première année bi dañ doon dem di jouer ci école yi. Mhm. di leen jox ay atelier deuxième année bi dañ koy dolliwaat dem ci jardin d'enfants yi en plus sànq yaa ma doon laaj ci suuf loo xamante ne dama neex la parce que da nga ni sunu culture ñu dañ cee war def ay thèmes loo gis branche la parce que dañu commencé ci ay contes mais ñi ngi ñëw dañu ñëw rek toog waxtaan ñu xool ni Sénégal lan moo fi dox Sénégal fan mooy metti ci ñoom. yaa ngi ci mbedd pédophile yaa ngi fi viol baa ngi fi lépp mi ngi ci mbedd mais kon bu ñu toogee waxtaan loolu ba pare kon bu ëllëgee kon xam ne mi ngi suñu xel lu ñuy defar la tënk ko ñëw teg ko fii ngeen ñëw xool si waat sama maam nettali ko saa baay saa baay ma ko ma ñëw dégg di ko wax fii la xewe woon fii sama doom jógal kaay damaa bëgg lii ñuy wax fii bu la ci dara la ci na nga jàpp lépp ba mu ñu paree lu ma la ci laaj nga tontu ma ci dégg acca tontu bu ne jirim la woon bu nekkoon ci dëkk bi gisul baay gisul ndey wéet loolu ci boppam di taxawaalu su benn ci dëkk bi di dundee bi kenn dañ koy jox bi di ko ko jox bee ak reen yi ñàkk ak meññeef bi ñoom bi tàmm mu koy lekk boobu la xale bi ñàkk doxe lu mu am muy lu ko may mbaa lu mu for mu jël genn wàll genn wàll bi mu sotti ko ci biir kàmb bi guro genn wàll mu jël genn wàll mu def ci kàmb bi sëñ genn wàll mu naan genn wàll mu def ci kàmb kàmb bi ceeb dugub mboq da koy wàññi ba mu mot set genn wàll mu jël genn wàll mu def ci kàmb mu jàpp loolu ba gàmm jëm bu ful ñàkk. gerte gi ji ñax ko lool ndax gàmm nga daa dem ba jàpp boppam mbirum dencukaayu ñam xale bi kontaan ca lool bëgg ca lool. bëgg ci kàmm gi. bis mu ñëw <coughs> yiir kàmm gaynde tàbb na ci segg tàbb na ci jaam tàbb na ci rëbbkat sax tàbb na ci ba daal di kañ ne man xale bi yàq bi ma juddoo ba tey gisuma tey gisuma baay gisuma mag gisuma sax rak tey sama yaakaar ubbeeku na ne sax ba daal di dem ca àll ba wut fa ba gis dara mbaa di yett ko ñëw ba ci tiim tàng bi tiim tàng bi nga xool ngay nekk xar gi bari àll bi seen yaakaar waaye nit nit kay yaakaar. baax na dama jóg yaa ngi dugg sinon xale bi xalaataat tuuti jël bant bi jox ko rëbbkat bi génnee ko ba mu ko génnee dafa ànd ak moom ca ba mu bokk moom benn néeg fanaan waaye nelaw jafe leen lool ndax xiif ak leen di bëgg a dee. xiif bu mu ne doo nekk liggéey. doo nelaw day nekk liggéey. ñu mu métti lool ñu toog ba guddi ci suuf set ñu dégg mbokku ci muy lii moo xam ne ni at bi muy ay naaj yu àll ba ñu dikkee ba ñu toll ak ginnaaw ñu fàtte ca ñett. ñett xale bi toog ba yàgg dégg ñuy xoos ci buntam mu tiit waaye dégg baat bu naan ko ee eh, xale bi nag bul tiit man la kay def man maa ñëw fekk waat sama kóllëre gi yow man maa ñëw matala sama yaakaar ak yow andi naa la ñetti na ko àll yu may xale bi jóg jël ko àll dagar ji mu ne dàll ci. soo ko tas talatu ñu dara fu ne waay jëm talatu kenn ku dul doomi pour mu jàng buur bu jël moom dëkk ko jàng ne booyee xale bi ñàkk matt kii ma matt doomi buur du ko rey bu ci kanamee tuuti tuuti na dëgg mbam moo ji woote ni képp koo xam ne kii faj na sama doom ji danaa xaaj sama alal

mu jubal ci buur jàkkaarloo ko ne ko buur buur li ma laa déggee bu ñu ko jëfandikoo bu ñu ko jëlee def ko ci bopp waxtaan baxal ko ba mu bax bu ko sa doom bi naan ñu wër buur xalaat bu dafa gis yéen kii rek def ma ko ba mu baax ndax dama ñu nii doo xam ne ji bu ma ko déglu woon tey danaa faagaagal doomi aadama bi nga xam ne tey moo mën a faj sama doom ñu tàggale bopp lëbu bi ak baatam fees jël daal jël ngeen mbër boobu yaa ko bi mantee teg ca teg taal di ëpp muy boy muy boy время не люблю.

Si tes pieds t'engagent, pas aussi Mais si ta t'engage, c'est Il est très difficile, voire même impossible de retirer ça. Tu savoir ce que la bouche a c'est la langue qui le dit la preuve, un grand roi était tombé malade. Très, très malade. Ses médecins lui ont dit que l'unique moyen pour guérir était de boire du lait de l'homme. Il était perdu. Mais il a fait appel à un de ses plus veillants guerriers pour lui confier la mission. Le guerrier se met en Le moo tax mu ne li gën a wóor ci qu'il au kay faw ma xel ko ay doom waaye vous bu ci tëj àll fa ngay dégg ci géej gi mag a mag waaye ji daal topp gaynde topp gaynde gi ba gi denc waaye ji daal di dem làq bi gaynde gi nàmpalee doom yi ba war a dem rëdduwaat waaye ji daal di dugg si gaynde gi foofu dal di foofu gaynde gi dal di foofu gaynde gi dal ba gaynde gi jigéen gi war a ñëwaat nàmpal doom yi waaye ji daal demaat làq ba fajar gi après des semaines de familiarisation le guerrier finit par dégager une odeur de vie Il fait que même la lune pas à la de ses enfants alors il a profité pour prendre part à la fête matinale si il a rempli nekkee sur le chemin du retour yoon wi gudd lool sooy trop naaj bi tàng bi mu romb keppaaru garab bu feex lañ ko yónni mu ne def fa ngelaw li duggee nelaw jàpp ko te ñëpp xam nañu boo nelawee ci xel bu dal gént na yomb ma ngay génn cër yi benn par benn ku nekk yaram bi ci cër yi ma ngay kañu naan tàkk ba noppi

on n'aurait a conçu ce plan de fer bay réussir cette mission bu nekk nga yow Bakar ma nga naan bu doon man bu doon man du ñu mës a nooy ba yegg ci àll ba bu tëj nga naan bu doon man du ñu gis yoon ba may mën a waaye waxi tey dafa mën a gën xanaa amoon seen sa jabar waaw dafa amoon sama benn bu baax waa Sénégal tamit ñaar dafa di doxal di dox di dox di dox di dox di dox ba si ci benn tàttu buy sànni gi toog ci ren bi. kenn gisatu ma de. kër gi commencé dox ma ngay nelaw ma ngay nelaw muy neex. di nelaw muy neex. di nelaw muy gën a neex. di nelaw muy gën a neex. di nelaw muy gën a neex. jékki-jékki bi bële jóg jóg. di xool kuy gi kuy gi yaatu lool. waaw loolu doy ko. di xool ca kaw. gis nga ko kuy gi yaatu lool. mu tàmbali ko laaj. waaw kuy. waaw lu sa peex gii neexee maa noonu la sa peex bi neexee. ah day sànni gi nag xam ne kii gan la ci dëkk bi. xamul teraanga yi may def. Mm-hmm. ci noonu rek mu may ko peex mu ne ko ko loolu seetu lool ci xolam mu dellu laa jàpp. waaw waaw kuy. ni sa peex gi neexee sa maa ngi. naa naaj. waaye jar na ko. parce ah, que jakaar dafay am mais il faut que am gerte

naan e oh, le ciel bu du ndox bu gàttu geen mën a daw. le ciel bu du ndox bu gàttu geen mën a daw. le ciel bu du ndox bu gàttu geen mën a daw. te noonu xaw a jabaru lëgër na sañse ba bañ ngay sànn. beddoo mbedd mu jaar fa fu mu romb ñii di kontaan ñii di bég ñii di reetaan nekk te jabaru bu kéy nga fële toog ko xool xooloon bu bon. waaw waaw mënu cee ñàkk nag. dëgg la. ndax fépp foo gis mbooloo rek uh-huh. y a des mauvais gens à côté. te bëri ñëpp defe ni day somb jabaru nag mu ne waraas.